gati oto chambure la tumba gore la la panjale kopteni gati oto salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli seen dem sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu ñëpp ñu nuyu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou képp kuy seetaan internet la ñu leen nuyu fii si Mak TV nekk fii Seera tali koro xam nga te dañu am ganu rëy ñu koy wax Père Bakhoum di manager Père père Bourkhane dama juum père Bourkhane Wade non xam naa ko dama juum rek di sama xarit di làmb lokk di manager Boy Niang jóge si jóge si ndam lu rëy xam nga vraiment te am na am nañu ay gan yu mag te làmb noonu andi la parce que Bakhoum mi ngi toog di manager Ama Baldé Ipo nga Ipo mi ngi toog euh, Ndiokhoumbaay borom ay ca ay ca ay ca kon yuxum Alé Dia mag TV mag sporté am nañu gën gu rëy te lamb te liggéey naan dafa ala doome mm. te lamb moo nekk tey fii si biir mag TV liggéey rek a wóor Père Bourkhane ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi lu fi si hospital bi. Euh, ngi lay fay euh, Boy Guendar euh, onze bi kalimaati laay taamaati min sharri ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Baay Laay ñu ngi nuyu internetu mag TV yëpp. Euh, di wax euh, Sénégal yàlla na fi jàmm wàcc di profité ci occasion bi di nuyu suñu mbokk manager yëpp di nuyu mbër yi di nuyu entraîneurs yi di nuyu amateurs yi di nuyu CNG bi di nuyu tamit suñu ministère tutelle di wax ni euh, ñu ngi ñaan yàlla émission bi ñuy def intéressé internet yëpp te ñu wax fi lu am njëriñ incha allah. suñu ministère tutelle jaaree ci turam. waaw euh, Yankhoba Diattara waaw waaw merci jërëjëf nuyoo bi am na solo donc ba noo ñëw si actualité bi parce que daan si ñëw léegi maanaam kan mooy Père xaan maanaam fu mu juddoo ak fu mu maanaam lu tax mu amee lamb ba tax ba tey tey mu nekk ñëpp xam si Sénégal ba tey nga nekk manager Boy Niang xam nga yóbbu ko tey fi mu toll tey quoi si lamb waaw dëgg la euh, euh, Père Bourkhane sénégalais la plus particulièrement pikinois ndax Pikine fi laa duggee école fi laa defe service militaire fii laa takke jabar fii laa ngénte sama taaw ba yàlla dimbale moom ma am kër ñi biiru dëbbuun ancien militaire laa nag boo xam ni def naa six ans et demi armée ah bon def naa six ans et demi armée classe soixante onze trois la bari na actuellement su may xarit yoo xamante ni dem nañu retraite comme man nekk ay agent breveté ñi nekk ay commandant ancien commandant brigade bërki démb rek ci biñ may pare ne benn conférence bu laayeen yi ñoom ñëpp suma kër la ñu yendu Pape Thiam mi ci ña fa nekkoon ca la bokk Boy Niang ñëw na fa euh, papaam ak yaayam yëpp ñëw nañu fa. Baye Mandione ñëw euh, gisuma ko waaye nag quand euh, sëriñ su bari ñu nga fa woon lu mel ni ñoom Ibou Sakho Laay ak ñoom euh, Chérif Mbay Laay waa kër euh, Alaaji Ablaay yëpp. ñu nekk eh, Ibou Laay ñëwoon na Ibou Sine Laay ku am xorom gi rek te xees nii. waaw Ibou Seyni waaw ñëwul waaye nag euh, ay rakkam ñëwoon nañu fa xam nga ñëpp mënuñoo ñëwandoo waaye daal làmb li ma ci dugal <clears throat> Pape Diop mi nga xam ni. Diop Baston Baston. xam ni ñoom ñun ñooy seeni tofo en en quelque sorte nekkoon mbër Thierno njaay bu TFM ak ñoom Mandaw Diouf ñooñu ñoo doon suñuy doyen. Thierno Ndiaye borom borom noo ko daanee. noo ko ñooñu ñooy suñuy doyen man bi ma jógee armée aussitôt fekk ñoom Mansour Diop nekk ay xale. Mansour si combat Boy bi waaw mu andi Boy Niang. delluwaat na sax parce que moom combat bee ko indi woon ñoom ñuy bëre muy génération ñoom Sadio Ndiaye euh, astafurlah Sadio kamara ak ñoom Ndiouga Dia ñoom Ibrahima Mbaye bu Faas génération boobu la ñoom Birane Kumba alors euh, ñoom booy ci Tilor bi ma ñëwee fekk fi génération ba ak Pape Diouf Pape Diouf bu XFM ah, voilà euh, ma nekk fa. commencé bëgg di bëre parce que ñu ci bari bëri naa ak ñoom ñoom Birane Kumba ak ñoom Pape Diouf ak Boy Tilor ak ñoom ñëpp bëri naa ak ñoom ñoom Gonaar euh, ñu ci bari bëri naa ak ñoom après nag ma bàyyi di encadré nag ñoom Balla Beye 1 Mansour Diop Mbacke Ba parce que sama papa euh, bañul woon bëre mais sama yaay bëggul woon bëre waaw mu jógee Kaolack ni ma nag léegi da ngay arrêté loolu. Balla Beye 1 bi nga naa naa sa biir bi. voilà. Balla Beye boobu maa ko formé waaw ak ñoom Mansour jóob ñoom mbake Ba ñoom Leyit Fall. waaw mais kii est-ce que du Ndiaga la kooku moom après la parce ñëpp ci ñi nga xam ne formé laa ci la ñu bokk parce que ñoom Ndiaga ñoom Pape Cissé ñooñu maa doon jàngal boxe loolu moo ma tax ma dugg ci làmb jot naa bëri quelque temps sama yaay bëggul. Ah bon nekkoon nga mbër. waaw bëri naa mais sama yaay bëggul ma bàyyi commencé di former ay xale comme ñooñu ma la limal noonu ndax Pikine mbooloo nekk naa seen secretaire général ñaari mandat euh, président bi nekk Ndiaga Thiam bi nekkoon directeur marché poisson. Pikine mbooloo moo doon ñan. mbooloo mooy bi Baba jàll yor léegi ak ñoom Paala. Ah, waaw nekk naa seen secrétaire général ñaari mandat boobu président bi Ndiaga Thiam moom mu nekkoon président bi. alors foofu daal mun nañu wax ni suma passage da ci làmb. est-ce que mbooloo. waaw waaw fa ñu ñoom yéen mbër ñu nekk. ñoom tonnerre fa la ñu nekk. ah tonnerre benn bi ñoom bëri Moussa Ndoye. ñoom Cech fa ñu nekkoon ñoom Boy Sey. Ah, waaw waaw euh, mi ngi fi dafa bàyyi làmb parce que bi mu dëggee jógee Màkka la bàyyi. ah dafa demoon ah. parce que moom mi ngi liggéey ci benn société mu jógee Màkka ci la bàyyi làmb ah Cech euh, kii Boy Sey moom mu ngi mu ngi Espagne. Boy ah, moom mu ngi Espagne. alors ñoom tonnerre ñoo fi des. Euh, ak ñoom Ndiaga Thiam ñooñu ñoom. Boy Seye est-ce que moom mujj woon muy muy dem Espagne est-ce que est-ce que moo fi def retour bu doy waar parce que dafa tegle presque cinq défaites ñoom Sa Thiès daan ko ñoom Tapha daan ko euh, ñu bëri daan ko. mu ñëw daan Siteu daan Diène Kaïré. Euh, daan daan xale yu bëri ah. daan Tidiane Faye. ah Tidiane Faye ñoom ñetti victoire yooyu la la la la demee Espagne ba ma ko woowee ne ko mais Sey kaay toog fii ñu liggéey xaalis mu ne ma père milliard bu ñu ma ko doon fay dootuma dootuma sëgg di bëri parce que dama ñëw Espagne fekk fi ay nit yoo xam def nañu plus de vingt ans amuñu këyit man ma ñëw am këyit am liggéey kon man loolu moom war naa ko ginnaaw léegi maa ngi ci sama liggéey. effectivement loolu la nekk di def mu ngi liggéey waaw de bokk nag ci benn association boo xam ne les sages de la lutte sénégalaise man ci laa bokk Moustapha Gueye mooy président bi. boobu ah, yëg boobu dégg naa boobu muy avancé bu am solo. Ah, waaw parce que tabaski bi passé rek kenn ku nekk membre bu nekk jox nañ la cinquante mille. alors euh, mu nekk association bu am njëriñ ñu ñu def lu bari ci social euh, ci la ñoom Birahim njaay nekk moom mooy trésorier bi moom Ibou Ndafa. moo yore sociale bi euh, Kayre moom moo yor communication. bi Papa Diène Kayre. waaw ay ñoom sëriñ Kane Serigne Kane xam naa mun xëy na xamuloo ko mais def def na def na carrière fii quoi. Hmm. ah waaw ok mais Père li ngay tontu leer na mais man nga. xamu ne woon aussi yor nga jaar nga sa carrière bi nga fi nga li nga nettali yëpp maanaam tey xam kan mooy Père bu gën nañu xam kan mooy Père Bougane da nga tërbiyu maanaam tëboo tëb rek xam nga waaw te yu bëri xam nu lamb maanaam xëy na li ñu koy waxee di cinquante pour cent bi moo leen ci intéressé ñoo leen jël a conseil Boy Niang mu dégg parce que koo xam ne da tàggat dégol mu nekk li mu doon mu ànd ak Mansour Diop parce que Mansour moo dugal dégol ci làmb ah, Mansour Diop waaw ah, Mansour Diop moo dugal dégol ci làmb nga ànd ak ñoom Balla Beye numéro un mu bëri ñoom Ndiouga Hmm? bëreeg ñoom Cheikh Loum bëreeg Dame Souguer màng Manga 2 kooku man commencé wu ci booy ñaa di tàggat waaw. mais ñaata nga yor pour ah? l'instant maa yor ñoom Kolifay. Kolifay 2. Kolifay 2 maa ko yor maa yor euh, euh, kii euh, Baye Mandione Junior. Kolifay 2 moom la kii daanoon Ada waaw moom la Ada Fass daanoon mais moom tamit. mu ngi ci 18 wala 19 combats ah. te ay defetam bëriwul trop trop parce que ndaanaan yu bari bëri na ak ñoom ñoom 12 ans maa leen yor ak ñoom Petit Niang mais père mais père en tant que mbër en tant que champion en tant que manager combat démb bi maanaam ba ñu ñëw si combat démb bi soq ak euh, marle di combat bu ñëpp doon xaar maam ñu ñëw maanaam bëri loo xam ne daal amateur kontaan nu quoi man boo gisee ma fonkoon Baboy Balla Gaye numéro 2 ku mel ne Balla Gaye bii saa kees. xam Papa Sow. waaw ñooñu seen combat day yegg parce que mbër mën na daan amat combat. waaw amateur kontaan. mais nga ñëw am xaalis ba amateur mer kooku est-ce que loolu làmb loolu a demee maanaam sox en tant ma amee booy bi xam nga doon maar mm. ma fi man daf ko waroon jaay estorom forcé ko comme ni amaat di bëree parce que xale day bëri bëri xale. mais na amaat combat. xam nga léegi làmb la làmb nekkatul. li bu njëkk ba nga xam ne ay honneur la wala yu mel noonu léegi da ngay xool say intérêt xool xaalis euh, soq dafa daan gàmmu gay ñëw ci fay ko cachet boo xam ne musu koo am. waaw ñu daan ko. mu ñëw ñu indiwaat ko jegewaatal ko par exemple cachet bi nga xam ne moom la moom la bëre woon contre marle contre Franc. contre Franc mu war koo bëreeg Marley. tey jii mu ñëw. gisul bunt bu ko may facilité pour mu ñëw rek saax saaxee adversaire am daan ko te it buggul dugg ci loo xam ne tey jii dinañ ko ci. dégg na métti moom. waaw Marley moom da da Diène Kaïré da koo daan mu ñëw daan ni ko réel la ñëw bëgg am assiduité maanaam continuer ci ay victoire bëggatuma dellu ginnaaw. ci lancé mu nekkoon. waaw xam nga kenn ku si nekk bi làmb ji bi ñu la dékkee micro ni nga waxee rek mooy bëgguma woon saax saaxee sama yëf. gis nga euh, Fallou Ndiaye bokk nañ ci promoteur yi dàq organise Fallou benn. waaw xam nga lu tax ma ne bokk na ci promoteur yi dàq organisé parce que moom day topp xale yi depuis ba ñu nekkee Mbapat xool ni par exemple ñaar ñii su ma leen boolee dina am xorom si parce que kii day song. kii day mboot wala kii mën naa xeex kii mën naa bëri. su ma liggéey moom balaa balaa taxawal combat day ittigi ñaari mbër yi jàng leen. waaw parce que ñi mu ñi muy tëgg ni tey jii waaw tey ñoom Ada Fass moo leen génne ñoom bulldozer moo leen génne. ñoom dem Ramdaan mi li ngay jaale. waaw Ramdaan ñëpp. dem si àll euh, Ramdaan parce que ci ci kilifom boobu ci la ci la kooku nekk champion. alors dafa am loo xam ne il faut que sooy sooy monter combat pour mu neex da ngay boole ñaari boo xam ñoo xam ne. opposition gis nga combat Balla Gaye Boy Niang bi mu taxawee. dañ ma doon wax ni ku mënul daan Lac de daanoo Tafatine Tafatine Balla Gaye daan euh, Balla daan ko kon boo fa demee doo fa am dara waaye ñun xamoon nañu ni Boy Niang am na capacité bu mu daanee Balla Gaye parce que Balla Gaye day bëre par contre Lac de su ma la déggee li li Balla di bëre moo arrêté Boy Niang. waaw mais bien sûr xam nga tey euh, koo xam ne ku mel ni Lac de su la mbër mi di jàpp. yaa ngi éviter mu téye la yaa ngi éviter nu mu lay daanee ba yow tax na sax yow jéemoo def dara la koy daan kon foofu ba day day day difficile. Tafatine comme Tafatine tamit la même chose dañ doon wax bu ko bu jàppee booy Niang ñu dem ba jàppante ñoom ñaar Boy Niang di fexe nu mu ko daanee moom mu toujours muy fexe nu mu bañee kon ñooñu ba léegi Boy Niang difficulté bi muy am ci ñoom mooy du ñu nangoo bëre moom mooy jéem. mais père est-ce que est boobu Boy Niang joxul cër ma bu métti ba tax mu daan ko par avertissement. boobu am na problème parce que xamal nañ ko ni nga bëree cette fois-ci teguwul ci yoon xam nga moom wax na ni avant muy bëreeg Balla am na yu bari yu nekkoon ci man yoo xam dama ko rectifier parce que yooyu ay erreur la woon Boy Niang benn loxo la doon xeexee tey jii ku ne xam na ni moom léegi ñaari loxo lay xeexee. kon lii nga manqué yow da ngay dem wutiwaat ko ñun de benn yoon lañu am boo xamante ne dañu ñaan yàlla rek atteindre ko te suñu yàlla jàppalee ñu gën a déggoo gën a juboo gën a perfectionné wu ci suñu liggéey yàlla mën nañu atteindre loo but bi nga xam ne moom lañu soxla. waaw ah, léegi balaa nga ñëw si actualité bi dëgg dëpp yi muy Modou Lo Boy Niang maanaam tey bi tey maanaam yow Diène Kairé amul combat Moussa Ndoye amul combat Sos amul combat maanaam combat yooyu ban combat moo si gën tegu pour. pour pour promoteur taxawal ko maanaam ban moo ci gën a ñor combat yi. Diène Kaïré nga wax. Moussa ak Zos. mais ñoom dañuy bañante. waaw donc en tant que père bu wax si lamb lamb loog. waaw maanaam pour ba combat a jaar yoon pour mu pour taxaw daal bu gën a ñor xam nga tey jii Zos hmm, mu ngi dox Moussa Ndoye la bëgg mais Moussa Ndoye bëggul Zos. Moussa Ndoye bëggul Zos. mu bëggul Zos parce que Zos temps yii passé rek mu ngi koy sànni ay ay flèche yaa ngi dégg nit na ñëw jël avance bi ñu bëre kon kooku moom bëgg naa bëre mais Moussa Ndoye deful signe de vie te xam nga ne bu defoon signe de vie. moom taxaw na avance mais Moussa tamit soo ko laajoon am na ku mu bëgg xoolal jën kayre boobu ba léegi mënul am combat parce que xëy na moom tamit ñi mu bëgg bokkul ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg mbër yi foofu la fo bu doon par exemple tey ñoo xam ne tey boo leen boole woon tey tey tey ñu bëre loolu day yomb. mais mbër yi kenn ku nekk yaakaar nga ne fii la gën a nooyee. li ma gis maanaam espoir yu am nañu combat moom moo fi des Moussa Ndoye Diène Kairé sos sos mu seen grand la man pour man bu Diène Kairé Moussa Ndoye taxaw leen Moussa Ndoye sos war na mën a taxaw seen seen du beneen na ah. waaw mais dama lay xamal ni actuellement fii ba juin dimanche amatu fi. dimanche bu jeex na. waaw te samedi sax mi ngi jeex. <laughs> non lamb lamb bi avancé leer laa lay wax de. mais père man dama gis ne lamb est-ce que père bi bi la xaw ma xawul ko woon rek tuuti. non non bi nga defee direct ba léegi affaire mi gën a amat ampleur. non non père père bi moom toujours day baax parce que boo gisee promoteur yi dañu nangoo. ma arrêté promoteur yi mais mais mais amateurs yi ak sénégalais yi non xam nga gis nga rek il faut ñun nangu parce que tey bi ñuy defar péage bi dañ doon wax ne ñun bëgguñu péage ñun lu ñu lekk la ñu bëgg bi péage bi ñëwee tey ñëpp xam nañ bu fi péage bi nekkul woon kon fu ñu jëm kon Boy Guendar dina bëgg a dem liggéey yi te du dem liggéey nit ñi tamit doo leen topp ci leen neex da ngay xool yi leen arrangé. su mbir boo koy taxaw du jékki-jékki rek ñëw foog nga def naka-naka muy. mais bien sûr que noonu lay demee gis nga tey Zos fi mu toll Diène Kairé ak Moussa Ndoye ak euh, même kii euh, Coins. am na combat. kon moom moom moom Lac Rose waaw voilà ñooñu tey jii kenn ku si nekk bu dee yow sa moroom rek nga bëgg a wut hmm? da ngay am problème il faut nga dem jëli benn xale boo xamante ni xale bu dëgër la boo ko daanee dem sa yoon. Zos bu muy def retour bii ma lekk comme Boy Sey ñoom Tidiane Faye ak ñoom Issa. ñëpp la daan. noonu noonu comment yu sorties yu mujj yu baaxul ko waaw léegi mu dem benn def benn sortie xaw ma ñaari. si Siteu ma ko daan après ak Alioune Seye non dafa ñëw ci tournoi bële ñu daan ko daanaka amu fa victoire mu dellu soit ñu koy daanaat yéen a. non wala Siteu daane woon. waaw kon kon léegi nag foofu moom li woo li baaxoon ci Zoss tey jii mooy xale yi nga xam ne am nañu coow. mu dem jël ñooñu mais nay xool taay taay si la bokk parce que xool tey jii xale bu mel ni Ada Fass mu tiim la. ngay bëreeg moom daanaka sa capacité du ci bari da ngay xool koo xam ni ci ñi ñi génn ni nga bëreeg ñoom ndax nga mën a am dara quoi waaw. léegi nag Père dañuy wax si dëgg-dëgg gi ba ma Boy ña ak Modou Lo dégg naa Birame ñu ngi RFM muy wax naag promoteur ba d' accord doon si cachet mais en tant que bu Père Bourkhane maanaam mais suñu mbokku internet yi ñu ngi fi si yaraax quartier Lébu gi tëli koro bi xam nga tëri jàlloo caméraman bi mooy yuxum xam nga di les vrais techniciens ñu koy wax Eliou booy Gendar le promoteur du Nord mooy def émission bi ancien mbër ñëw fii si Mak TV di jàppale borom Mak TV muy Alla léegi est-ce boobu taxaw na wala taxawul. noo combat bi ñu ngi koy démarché mais taxawagul. waaw ah, taxawagul. parce que taxaw mooy ñaari côté yëpp nekk avis favorable mais boo lijjantee benn boor ba mu sotti te beneen bi sotteegul kon ba tey taxaw. léegi nag loolu moo tax taxawagul mais ñu ngi ci démarche yi waaw xam nga euh, làmb man duma nangu rek nga wax nii rek dem sa yoon ma ne taxaw na parce que loolu taxawalul làmb làmb dafa toll foo xam ne actuellement contrat moom mooy dox su ngeen demee ba signante benn contrat loolu moom taxaw na mais dañuy wax ni les paroles s'envolent les écritures restent Hmm? loolu mooy lan déggu wax ji day dem waaye mbind bi daf fi des. te su ma ñëwoon ne la taxaw na suba man la waxuma la ko woon. waaw su ma déggee daal foog big bi xool su ma soo xam combat. loolu mooy taxawal combat. mais pour l'instant ñaar promoteur ñoo koy bari nañu ñi ko bëgg bari nañu. parce que mi ngi si. man ne la ñoom ñëpp ngi ci mais kenn ku si nekk seeni capacité ñoo tolloowul dafa am làmb yoo xam ni euh, mën nga koo mën nga koo démarché mais mën nga koo bañ a mën a tëgg combat yooyu il faut mu am ñu la accompagner sa xaalis ci sa poche dong. nga fond waaw munu ko. mais ku mel ne Gaston Mbengue mën na ko. bien sûr que Gaston xoolal li fi dëgër yëpp. lii lii lu ko laaj mën na waaw mais xam nga problème mu ligue déjà mi ngi nii ci Ama Baldé ak. Euh, te loolu sottiwul kon man duma ko conseiller sax muy jéem di defaat leneen doo ngay def lenn ba mu sotti nga doog a jugaat defaat leneen. waaw. yàlla su ma dégg comme ni si combat loolu combat combat su dee day tëgg. combat Modou ak Ama Balde mu ne damay tëgg combat bi parce que moom ñun soxla nañu kàddoom président Bira seen wax na ci nee na Modou kenn mënatu koo téye parce que li Ama amoon loolu la Modou Lo am kon kenn mënu koo téye mais promoteur bi moo des pour prononcer wax ni man kat. pour le moment mënuma tëgg combat bi parce que lii ak lii ak lii kooku day libéré ñëpp. kon su ma su léegi la déggee maanaam affaire bi si ligue Nicolas la des. si ligue Nicolas la des parce que bi ñu ko dalee tëgg bi ñu ko bëggee tëgg yàgg na ligue bi mu bëggee tëgg làmb ji mat na quatre ans léegi ba tey. combat bi taxawoo ko. ok mooy père Tamba gi ñoom jeexale si kaw ci Balla Gaye boo Niang mais looy looy wax ñu naan maanaam Balla bu songoon Boy Niang fanaan wax ñooñu naan combat bi day niil. ñooñu du ñu Balla Gaye Balla du Balla Gaye du ñoom <laughs> lii ma la wax nii même ñii wax naan Balla Gaye jeexal na dañoo xamul. ah yow d'accord si loolu. non non bi mu indi moo gën bi mu indi woon ci Gris Bordeaux. Balla Gaye bi mu indi si combat bi moo gën. moo gën fuuf. bi muy noonu ci Gris Bordeaux te dafa daan Gris Bordeaux tey jii mu dem préparé wu ñëw am stratégie bi mu indi parce que nee naa leen dafa am làmb yoo xam ni mën a bëree du tax nga daan gën a baax stratégie mooy tax nga daan te bés boobu ñun ñoo gën a baax stratégie ndaxte moom dafa ñëw ne kii damay xeex moom ñu bëre fi combat bi bëre ko ci une ou deux à deux minutes waaw loolu la mu ci bëggoon jotu faa yegg. bien sûr que moo ko arrangé woon. parce que xale. condition bi nga xam ne moom la Boy Niang am moom amu ko yaa ngi dégg waaye am na nag ndaanaanu mën a bëre ci cinq minutes yoo xam ne li mu ci mën a def mën na koo def mais yeggu ca parce que li mu tenté jël ku yaa ngi dégg def yeneen feemam réussirul bi mu demee ba jàpp maîtriser tànkam su baaba euh, su Boy Niang Euh, nekkoon cuune day wéeru ci kawam mais wéeruwul ci kawam ndax boo wéeroo aussitôt bu la wàññee rek nga toog waaw léegi nag dafa bàyyi tànk bi ped pédale bi mu wàcc mu téye ci genju gi fàq ko léegi fi mu jàpp na woon mu jël def jël appui mais fi nga xam ne moo am solo ci ci ci bëri bi foofu moo da ko bàyyi ba muy fitti mu jóg mu mbaar ko voilà kooku kon munoo ci wax ne Balla Gaye nii jeexal na wala dafa perdal foofu da li mu bëggoon a bëre moom bu doon bëri bi dafa demoon ay trois minutes 4 minutes kon dina def bañ ne ah Balla kat def na lii waaye fee la mujj. mais yéen seen mbokku internet yi yéen ñu naan Balla Gaye jeexal per boo xam ne ñu toog nee na Balla Gaye jeexalul tey jeexalul ëllëg dama ñëw fekkee Boy Niang bu taxaw pare sur le côté war mu daan. defee bi ñu ko defee bombardier ama seen daan ko rek ñu ne noo kii jeexal na may leen am na ñaari combat MMA te xam naa ne ñaari combat yu mu am MMA. leer na ma ni dina fa def exploit boo xam ne ñëpp dinañ xam ni jeexalul parce que nit ki suy màgg morpho morphologie am day changé xam nga gendar gen euh, gendar keroog ba ngay bëree. booy get booy get ndar ba ngay bëree ak. Euh, tuuni système système yaa ngi dégg état bi nga yoroon ak état bi nga yor tey nekkul benn. kon nag nit ki suy màgg morphologie day changé. léegi Balla Gaye soo xoolee combat am ak Issa Pouye ak combat am ak euh, euh, kii Diop Ousmane Diop bind bi mu yoroon xam nga ni yoratu ko tey. ak ah, bi nga xamante ni bi nga xamante ni daan di ko kon kon loolu il faut nit ñi comprendre ni nit mën ngaa bañ a perdal waaye nag da ngay am kii boo xam ni dangay am bind boo xam ni dootul nuroo ak bind bi nga yoroon léegi nag bis sam moom. ak tànk yi nekkul en proportion léegi kanam fii moo ëpp doole suuf gi looloo tax ñoom bu ñu bëree bu ñu jàppee dañuy bëree moo bombardier yëpp bala Gaye bombardier bu ñu la téyee dañuy bëree soo nekkul ndaanaan dañ leen. mais xam nga xam nga bàyyi ba maanaam maanaam Balla Gaye bàyyi lamb instant yi nii xam nga loolu du arrangement lamb parce que Balla Gaye day day man combat day day man day neexal lamb et puis day am coow. am na seen wax na mënul bàyyi léegi. Ah, jotagul ko après. dèjà mi ngi am ko lamb moo ko waaw te am na ay revanche yoo xam ne war na ko mën a bëri. tabatin. waaw day dem ba nga xam ni mu xool mu ko neexee sax mayawaat chance yaa ngi dégg mais tey ji liggéey cent millions yombul. ah bu bëgg la ko bàyyiloo. waaw. te ñaari bàyyi yëpp kenn du jox mille francs mais liggéey moom ba léegi mën na am cent millions. waaw léegi man dama fi bàyyi cent millions dem toog. kon stade bi lu mel moom mos ko mel si si histoire moo tax nag. amul benn poche. loolu moo tax nag moom am na combat bu mu war a bëri ji day dem entre na jiwaat dina amaat lu ëpp li mu amoon. yaa ngi dégg léegi dese na yeneen i combat yoo xam ni ñaar wala ñetti combat yoo xam ni mën na caa faraat encore xaalis. pour yokk ay ay ay ay investissement am. mais Sa Thiès Sa Thiès Reug Reug kenn ku si nekk boo négligé sa fooru moroom da ngay perte su fekkee ni Reug Reug dafa toog ni man Sa mënuma daan ci ni muy def gars yi su téye ci ay wetam nii lay def ak moom. Ah, détourné da koo mën mais tamit Sa bu fexee ba Reug Reug ko ci ñaari wet yi li muy wax naan matul mille mille caisse noonu la leen def waaw. ku nekk am nga point fort point faible. ku nekk am nga point fort point faible nekk bu nangu nag sa point sa point euh, fort. Mhm. waa sa morom di ko exploité. macha léegi Macky euh, Macky Sport moo la lii. li mën na mën na lax. ma mu baax yaram de tab bi moom xoolal boo déggee sa kër gi rek. non non kii dama koy def <laughs> léegi Mak Sport mu ngi la solo lii ko léegi lay wax si Mak Sport ak Mak TV. non Mak Sport ak Mak TV ñàkk fee xam wóorul. macha allah maanaam ñàkk ñàkk xam Mak TV ak Mak Sport wóorul. parce que ñoom fi mu nekk nii li nga xam ne loolu lañ daan def France loolu la ñu indil Sénégalais kon léegi kenn commandeetul di dem France naan damay wuti ay Nike wala damay wuti ay t-shirt wala dara loo bëgg bu dee maillot wala loo mën a bëgg. ci sport. boo ñëwee fii di ko fi am. di nekk fi si yaraax si Elton bi tey dañ ciy félicité. Euh, Alé Dia Alé Dia ndax nekk Europe toog fa jële fa xam-xam ñëw indi ko sa réew loolu moom ay valeur la yoo xam ne dañ ko ciy félicité anal yàlla moom mu am doole ndax bu amee doole lu bari dina dox incha allah. ok merci beaucoup. Gati